ba tax doomam du am jafe-jafe ñu jëlaat ki ci ligne bi mbokk allo allo allo waaleykum sant yàlla bu baax tey ziar. allo. ulala ñu ngi koy jéglu bu baax a baax di ko ñaan na jéemaat dugg indi xalaatam. soxna Mbaye bala ñoo dellu si ci jàngalekat bi dañuy dellusi ci waajur bi. Mhm. xam nga sëriñ daara bi. Mhm. waxul kenn kaay jox ma sa doom ma jàngal ko. Mhm. lu ci ëpp. nit ki mooy xool ne diw de. doy na ma mm-hmm. ma yëkkati sama doom dem yóbbul ko ko pour mu mm-hmm. jàngal ko. Mm-hmm. mais nit ki su la doyee pour nga yëkkati sa doom dem jàngal ko ko tam. su nekkee xaw ma ne mënoo ko de. xay na boo ko mënul moom kooku moom mënuloo ko. mais su nekkee mën ngaa jàppale sëriñ daara bi li ci war mooy boo toogee ba mu yàgg nga jëndal ko dara yónnee ko. et puis ah. wu dem seeti ko sax déplacé wu dem seeti xale bi jël kii ci bi ba pare. jàppale ko allo allo. waaleykum salaam waaleykum salaam. Ah, waaw sama sëriñ. ñu ngi ziar ñu. ñu ngi delloo ziar bu wér a wér. di kontaan bu baax a baax ci ki nga invité noonu. jërëjëf man maa ngi wootee fii ci la. waaye tur bi tur bi dama koy leb la rek lay fay bu baax. waaw. <coughs> ñu yàlla. kontaan rek di di ki nga invité. jërëjëf jërëjëf. ci taxaw daara yi yi ñu taxaw noonu. Mhm. ndax ñun ñu ngi ci association boo xam ne dañuy jàppale daara yi. Mhm. am na suñ koy suñ koy jiite su ko nekk foofu Sénégal. Mhm. parce que ñu nekk fii yëpp ñun ñuy tuddee suñu association bi daaray sopp na bi. daaray sopp na bi. waaw weer bu ne am na kenn ku ne di ngay seet bi di nga àttan sa bopp nga nga génne ko. Mhm. nga joxe ko ñu dajale ko pour jàppale bi ñuy jàngale nekk foofu ci Sénégal. Mhm. ni ñu fa nekk dañuy dem ci kaw gi di nem nekku sëriñ yi nekk foofu nekk ak sa uh, daara yi. dëgg la seet li ñu leen di war a jox ci yére wala ci faj ak yooyu. am na solo. Mhm. waaye tamit uh, gouvernement bi tamit daf see war a bàyyi xel ndaxte uh, da dangay seet léeg Euh, ñoom dañoo ba dañoo sàggan pot boobu loolu ci ndaxte euh, boo seetee ci euh, daara yi ñu nekk foofu. bu fekkee ne dañuy naan bu ñuy bu ñuy yalwaan ak yooyu. day gouvernement bi tamit mun cee taxaw ndaxte ñaareel da ngay seet li ñuy gën jàppale rek mooy ñu jàng école français bi. ñoom la ñuy defal ay subvention ñoom la ñuy defal te bu grève amee ñoom ñooy dem di toj di yàq di yàlla xam doy na daal. am na solo am na solo. Mhm. bëggoon nañu nag jot numéro moom mhm. it. Euh, ndax su euh, def te yàlla tax. Mhm. incha incha allah amul bëggoon nañu ñaan daal ñu jox ñu jot numéro pour ñu mën a jox moom. amul benn problème bu ñu paree émission bi rek euh, bu ngeen ñu woowee dinañ leen jox numéro am. incha allah yow yor naa ko numéro dinaa la ma wooyee rek ma jox la numéro am allah parce que dañuy tere joxe numéro en direct. waaw incha allah am na solo merci beaucoup ñu ngi nuyu waa Amérique yëpp. encouragé rek ci taxaw ci tànk yi ñu taxaw noonu. ndeysaan jàmbaar la jàmbaar la macha allah jërëjëf. te jàppale borom daal yi moom yàlla yàlla na jàppale. am na solo jërëjëf merci beaucoup ñu jaajëfal ko jaajëfal képp koo xamante ni yaa nga Amérique toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan def leen ni moom buntu baa ngi noonu euh, waaye nag euh, ñu dellu si waat rek euh, soxna si mm-hmm. yaa ngi woon ci lu am solo muy wéyjur bi mm-hmm. ni nga xamante ni noonu lay toppatoo doomam mm-hmm. waaye léeg-léeg gis nga ni ma la ko waxee léeg-léeg nga nekk ci but bële sa doom mi ngi fii parce que fii la yalwaan bi gën a duune mais léeg-léeg di nga dajee xale boo xamante ni da nga koy laaj ñaata at a ngi nii gisoo say wéyjur wala nga daje xale boo xamante ni daf lay leer ne xale bi amagul juróomi at wala juróom benn at ci lay dugg nga jëlee ko diggante bu ba but jox ko sëriñu daara bi pour mu jàng jàng dafay teel ñu ngi nuyu au passage oustaz Alioune Sall ci euh, lu am solo li muy def ci daara ak euh, ni muy meree bu ñuy xeex daara waaye nag euh, boo jëlee xale bu ndaw yóbbu ko daara pour mu war a jàngi dafa am noo war mën a comporté woo ak moom ma bàyyi la nga ñëw ci loolu ci wayjur bi mbokk ngi noonu ci ligne bi ñu jël ko dama lay bàyyi nga jël ko sax ndax yaa moom sa émission tey asalaamaaleykum salaam. waaw soxna si na def. ñu ngi sant. waaye jàll sant gi yàgg. allahumma amin allahumma amin. ñu ngi lay ñaanal di la encore. amin amin amin yaa rabbal alamin. li nga fay wax mooy njëriñ mu am solo ci jullit. alhamdulilah. <laughs> Soxna Mbaye nag sama waay xam naa dama ko gëj a woo. <laughs> ndeysaan. ndax numéro bi dafa mhm. caaxaan. xam naa suma suma paree ci yow. Ah. dinaa ko euh, waxal ma après mu jox ma numéro am. Mm-hmm. incha allahu taala. Mm-hmm. mais su ngeen soxna ci émission bi ngeen def. Mm-hmm. di wax ci affaire baar yi. ci gàttal rek maam El Hadj ma maam Borom Touba ci daara lañ génn. wallaahi al azim. Sénégal ku fi teg bañ lay topp. ñoom ñaar ñoo tax. dëgg la. xam nga dafa am njàng moo xam ne dañ ne njàngum giddil la am njàng moo xam ne dañ ne njàngum maanaam njàngum ëllëg ak njàngum tey. waaw njàngum ëllëg. ak tey. mooy ki nga xam ne jullit la. Mm-hmm. nekk ci diini islam. Mm-hmm. kooku nañ ko jàngal dugal ci daara mu jàng alquran jàng fiq jàng li mu war a jàng lépp. Mm-hmm. dëgg la. mu jëriñ ko fii jëriñ ko ëllëg. njàngum tey kese nag mooy. ki nga xam ne dafa naa jàng. pour nekk ministre wala député wala sénateur wala leneen. loolu moom fii fii la yem. ci jamono. waaw ci yooyu nag mën nga cee dugg sax am ci problème. ndeysaan. njàng ma leen nag moom boo jàngee ba yàlla defal la sutura. Hmm. lépp boo liggéeyul yaa ngi liggéeyal yàlla te liggéeyal yàlla moo gën. dëgg la moo gën lu mu yàlla da lay fay fii fay la fële. ndeysaan. daara nag dafa am petit problème. Hmm. problème boobu nag du neex a réglé. déedéet. ndax ñu baax dañoo yàq ñu bon. Hmm. am na ñoo xam ne man nañoo yor daara ñu seera daara du ko yor nam war a yoro comme daara yu njëkk yi. mais dafa am ñu jóg. ci bët lu yomb. waaw. ne dañuy wut daara mënuñu daara ñu yor daara. surtout. jël ay xale di leen yelwaan loolu ñu taxawal ci mbedd bi. surtout. man jaar naa ci daara nee nañ bu ñu daan bu ñu daan yelwaan. Hmm. suba teel ngay jóg. waaw. balaa huit heures nga ñëw da ngay jàng di jàng ba onze heures. Hmm. nga dem yelwaani ba lu ñuy jël subaar nga ñëw commencé at jàng ay trois heures hmm. nga dem ca àll ba wuti mat. boo ñëwee taal jàng. dem yelwaani reer bi guddee da ngay jàng. léegi nag boo jaaree ci këli bi da nga naan taal bii ban heure la ñuy jàng. Mhm. daf lay jaaxal dëgg la man dafa lay jaaxal dama leen sonal dem ci station di jël gaz la am. Mhm. ma woo benn donga laajte na ko yow ñaata am nga def ci daara ji mu ne def naa ci quatre ans. Mhm. ma ne ko ndax mokkal nga alxuraan mu ne ma diine ma ne ko fooyee mu ne ma àllam na sara. te gis nga li mu li mu fi mu yem fi mu commencé ak fi mu yem. tey kaamil boo ko defoon téeméeri xaaj. jël fukki bi defaat ko fukki xaaj. mën naa la ne sax jàngagul benn bi. ci quatre ans yi. waaw ci quatre ans am na solo. xam nga ñu ngi koy tardé ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy tardé ñu ngi koy liggéeyloo ñu ngi yàq yaakaaru ay waajur. am na solo am na solo. kon ñi mën yor daara nañ yor daara. ñu ko mën a mm-hmm. yor nañ bàyyi te xam ne loolu. du ndeysaan wallaay. ndax daara rek moo mën a defar diin. wallahi wallahi. soxna Mbaye. waaw. sa numéro laa soxla. bul coupé ñu jox la ko léegi. émission kontaan naa ci la xam naa dinaa la woo ñu waxtaan dama la a taala. xam ma la woo da nga comprendre. incha allahu taala. xam nga na un jour ma la woo. waaw. bi ma lay woo sa jëkkër moomu mu ne ma da ngay julli. ndeysaan. bi nga paree laa la woon xam naa su ma la waxee loolu da nga fàttaliku. dëgg la maa ngi fàttaliku kay. nañ ma jox sa numéro ci suuf après la woowaat. voilà bul coupé ko jox yu mel nii émission mm-hmm. daal nañ koy nay bari tey jege. incha allah incha allah waaw bu baax di leen sant di leen ne ñun nitu daara lañ. ndeysaan yàlla na yàlla def leen ngeen di mokk ci daara la dina la ko jox. waaw waaw merci beaucoup joxal ma ko numéro bi ñu jaajëfal ko mbokk moomu. waaye nag euh, dellu si rek mm-hmm. ci li nga xamante ni ci la ñu nekkoon. Mm-hmm. ci mu gaaw parce que mm-hmm. daanaka moom. xuus na ci li nga xamante ni moom lañ doon bëgg a wax ñan ñoo war a yor daara ak mm. nag yore daara mm-hmm. waaye laata loolu rek lan ngay dénk jaboot ci nga xamante ni dañuy jël seen doom teg leen ci daara mm-hmm. bàyyi leen fa fàtte leen fa mm-hmm. te boo wëree xale yi buujumaan yi ak ñi nekk ci eh, eh, mbedd mi di def naka su dul noonu ñu ci ëpp ci ñoom ci daara lañ jóge koo laaj mu ne gisatuma samay parents loolu lan ngay dénk waajur yi xam nga loolu dafa nekk problème bu nga xam ne Euh, problème bu doy waar la. Mhm. am na ay xale yu nga xam ne. Mhm. ci daara yi la ñuy nekk. Mhm. mais buñ fàtte ne am na ñu nga xam ne tam. dañuy jóge ci seeni waajur. dëkk ci quartier ba ñu wàcc leen fa fàq dem feneen. dafa am day am loolu la ñuy wax xale enfant de la rue mais enfant de la rue moom expression bi dafa xaw a tuuti parce que xale yooyu mbedd mi juru leen. am nañ ay waajur. xëy na ñenn ñi seen waajur dañu am ay rëq-rëq. Mhm. ñenn ñi am lu ñu leen dunde mhm. mais lépp rek xale moom boo ko juree. Mhm. Euh, suñu borom moo la ko jox. kon boo ko yóbbu mënee yóbbu sëriñ daara nga yóbbu ko. boo ko mënta yóbbu tam nga bàyyi ko ci kër ga. wala nga jaa dugal ko feneen. moo gën mu nekk ci mbedd mi. di taxawaalu waaw léegi nag. Euh, xale yi <laughs> yaa ko gis de sa émission moo tëddee noonu dinañ jël mbokk yi rek euh, ba mooy quart su ko defee rek ñu gën a xuus suñu waxtaan ak journée suba bi mbokk oui wa waaw. sant yàlla tey ziar. alhamdulilah. Mhm. waaw man ci émission daara bi laa bëggoon wax. ay ca mu gaaw ndax euh, li ñu war a waxtaan dafa bari te seen xalaat foog ñu taataan ko. waaw ngeen jéggal li ma bëggoon wax rek euh, gis nga bu baax rek ci daara gi lay lay jógee saa. Mhm. loolu leer na nañu nit ki bu nekkee nekk nga jullit dañ laa war a jàngal tamit fondation l'islam mooy lan. Mhm. waaw boo jàngee ci daara bi lislaam ñu jàngal alquran ak ak sariya. Mm-hmm. nga nga boole ci sa école boo nekkee ci gouvernement wala nga nekk benn bi nga xam ne li nga comme ñoom Taïb Socé ñoom mm-hmm. xam nga yàlla lu mu wax yonent bi lu mu wax xam nga lu àtt nit buñ la fekkee yaakaar naa fu boo nekkee njiit daal yaakaar naa am na li ngay rusa def wala am na li ngay ragal a def. jërëjëf. loolu mooy jikkoy lislaam am na solo. loolu nag boo ja buñ la jàngul boo jàngul ji koy lislaam nga jàng ji ji koy nasaraan rek loolu nga jàng. Mhm. waaw loolu ngay màggale daal. luñ la nàmpal rek loolu ngay màggale. dëgg la am na solo lu waaye nàmp moom ngay tokkamti ko. waaw lislaam bi daal buñ ko jàngalee. Mhm. nga boole ci donc voilà comment on dit ça bi nga boole ko ci. Mhm. ñaar yooyu mun na ànd mais toujours boo xamee l'islam bi lan lay wax alquran bi ak sariya bi boo xamee lu muy wax. Mm. fo fépp foo mun a seetee buñ la dénkee lan di nga di nga di euh, comment on dit ça ragal yàlla boo ragalee yàlla am na lu bëri doo ko ñeme def. am na solo jër jërëjëf mbokk mi. am na solo jëf ñu jaajëfal leen bu baax a baax euh, waajur yi ñëwal ma ci ñoom. waajur yi. Mm-hmm. Euh, am nañ ci part de responsabilité. Mm-hmm. waajur am nañ ci part de responsabilité euh, autorités yi am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag a mag a mhm, mhm. Euh, nit ñi tam ñun ñi mhm. am nañ ci part de responsabilité parce que euh, soo defee soo soo nekkee ak ku nga xam ne mu ngi jàngale ci quartier bi mu am fa daara bu ñëpp booloo ku nekk rek la nga am nag ñu fexe ba mu am lu nga xam ne soo amee sa kiif parce que am na nga xam ne daara teguñu xam comprendre ñu daara da gis ku lekk-lekkam ba desal yax yaag macaat yaag soos lu mu doon doon la nga xam ne da baaxatul daal mhm. ñu ne yëtaleen ma sëriñ daara ba mhm. ba tey nit ñi dafa des ñu comprendre ne daara mhm. jàngukaay la xam-xam la du pour du pour foofu du pour tam dangaa bon moo tax nga nekk daara wala dara yàlla moo santaane ñu jàng alxuraan kon kii ubbi daaraam di jàngale jàppale ko bu nekkee ne da koy jàppale di ko jàppale c'est gisu mu def noonu sax nga mën a wax parce que loo gis rek am ah xamoo luy seen problème. Mm-hmm. xamoo luy seen coono. Mm-hmm. boo leen di may yére la nga leen di may kenn du ko bëgg ca mbalit ma la war a dem. nga jël ko ne yéetal xale bi. yóbbul ca mbalit ma wala sax yóbbu ko ca daara ja. daara ja loolu du wax ñun ñoo ci war a jàpp. Mm-hmm. surtout ñun jigéen. surtout ñun jigéen dafa am lu am solo loo xamante ni dama koy gis léegi. Euh, mu bari man dama koy def parce que. Euh, xëy na peut-être du ma mën a déplacé wu dem ci daara je mais au moins dinaa jël benn taalibe man ma assuré ko añam loolu taalibe midi nga gis taalibe bi ñëw indi boolam bari na ci koñ bi ma dëkk man dama koy def keneen ak keneen daf koy def midi day indi boolam am na fu mu koy teg boo yekkee tibbal ko du xaar desit da nga koy tibbal tegal ko fa loolu initiative bu am solo la ñu jël mbokk mi ci ligne bi ba noppi mbokkalo euh, salaamaaleykum a salaam na ngeen sant ah jërëjëf man Mansour laa tudd. Mansour ay ca yow rek la ñuy déglu. ah émission bi laa bëggoon a bokk quoi. yaa ngi am na solo. yaa ngi en mm-hmm. am na nag ñi nga xamante ne nag dañuy jox seen doom sëriñ bi. Mm-hmm. et puis dañuy toppatoo sëriñ bi. dëgg la day sonal sëriñ bi. sëriñ bi tamit. allo. voilà euh, ñu jaajëfal ko bu baax a baax di ñaan rek nañ ma téyal téléphone bi léegi xam naa ñu bari bëgg nañu dugg di leen wax ne rek suba incha allah dinaa dalalaat keneen ci lu jëm ci wàllu daara yi kon mën nañ ñu baal téléphone bi ba suba ñu ubbiwaat ko comme niñ koy defee saa ne rek su ko defee euh, nit ñi ñu taataan seen xalaat ci lu jëm ci wàllu daara yooyu le euh, soxna si. bu ma ñëwee ki sëriñ bi. yi nga xamante ni dañu koy léeg dañ koy faral di gis. Mm-hmm. parce que olof Njaay nee na liggéey bu yemeeg tëdd jàmbaar dootu gaaw. Mm-hmm. te nag ku dem Touba fekk fa daara ku dem Tiwaawan fekk fa daara. ku dem euh, Ndiassane ak euh, Medina Baye Kaolack. Laayeen di nga fa fekk daara. mais am na yeneen i daara yoo xamante ni. nit ñi léegi wóolatuñ fa wóolu yóbbu seen njaboot. ndax comportement sëriñ daara bi. est-ce que ñooñu itam amul lu ñu lu ñu leen dénk. ci ñu dawal seen yaram tuuti que ne doom la ñu leen dénk. gannaaw bu wayjur bi ñàkkee def sax wareefam. yow mi nga xamante ni yaay sëriñu daara te engagé wu. ci lu jëm ci wàllu diine te diine amul naxee mbaay. ndax amul comportement boo waxee yool dëgg la euh, gis nga ñun dañu defoon benn système. CICES mhm. euh, lañ defoon journée boobu. Mhm. def sensibilisation pour système ndey daara. Mhm. ndey daara lu fi nekkoon la. donc euh, ñu bëgg ko delloosiwaat di ci waxtaan ak jigéen ñi pour ku nekk rek nekk ndey daara. maanaam da nekk ndey daara du par hmm. mais loo mën rek nga fexe ba xale bi. daal loo ko mën a jàppale nga jàppale ko mais nga waxtaan ci ak sëriñ daara bi <coughs> parce que nag ñun du ñu ñëw ci sëriñ daara bi du ci dugg ci hmm. digganteem ak xale bi hmm. wala ñuy jéem lenn su hmm. fekk na sëriñ daara bi neexu ko bala ñoo def dara dañuy dem ne ko ñun kat lii la bëgg a def waxtaan ceeg ak moom dégg nga ñu nga xam ne euh, xale dafa nekk lu nga xam ne lu sensible la dégg nga xam nga dafa am ñu nga xam ne tam ñoom ñoo war a saytu loolu ñun suñu rôle dafa fu nga xam ne dafa yam mooy soutien mooy soutien mooy su soutien bi sax waxtaan bi dafa gën a kii parce que euh, soo demee tey xale bi nga jox ko benn paquet suukar sëriñ daara bi nga jox ko benn paquet suukar mm-hmm. jariñu ko dara dafa la ciy sant na gërëm la mm-hmm. parce que moo gën loxo kese mm-hmm. mais dafa nekk lu nga xam ne suñu société ñoo war a changé waat xool nan la ñuy organiser waatee ci kaw ba ci suuf nag parce que nit ñaa ngi ciy wax di jàmbat di kii mais nit ki ñëw